monsieur Fall Babacar bu GRATEC ñu ngi lay nuyu. Euh, may fàttali ne yaa jiite groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance ñu bëggoon xam euh, monsieur Fall tey jii euh, commission politique dialogue national fas yéene tàmbaliwaat li nga xam ne mooy liggéey bi gannaaw nag ay weer ba ñu taaxibloo GRATEC jot ngeen convocation bi. waaw euh, ñu ngi ci ñu ngi ci discussion yi parce que dama lay wax ne ñun donc euh, c'est vrai que organisation de la société civile la ñu mais mm-hmm. dañu bokk ci ay plateforme yoo xam ne dafa regrouper ay organisation yu bari ñun dañu bokk ci plateforme boo xam ne ñu ngi koy tuddee pacte mm-hmm. donc ci à travers donc plateforme boobu am nañu donc ñaari représentants yu ñu toogal foofu ci euh, commission dialogue politique bi mm-hmm. c'est vrai que maintenant avec le changement de format puisque le nombre de représentants nekk fa pour le compte du COS ñuy ñaar mhm. donc ensuite euh, ki nga xam ne moom mooy président au GRADEC muy président Mazid Ndiaye moom déjà ci commission solidaire bi la bokk maanaam ñeenti nit yi nga xam ne dañ leen tànn ñu euh, ànd di liggéey ak général Niang mhm. ñu bëggoon xam modalité yi nga xam ne moom mooy décliner euh, waxtaan wi waaw modalité yi moom ci tënk rek dañuy wax ne xam nga président de la république déjà dafa interpellé woon président commission dialogue national bi mhm. parce que commission dialogue politique bi même bu fekke moo jëkk a juddu dañ ko mujj euh, taf ci commission dialogue national bi Famara jiite mhm. alors laa ne leen léegi dañ ko déposer le rapport euh, au plus tard le 31 août vraiment pour wax fan nañu toll ci liggéey comme ni mu la ko waxee liggéey bi dañ ko arrêté woon bi nga xam ne euh, crise sanitaire bi am na muy mbas mi mhm. toog na juróom-ñaari euh, euh, juróomi weer def naa yoo xam ne donc liggéey bi mhm. alors léegi donc ñoom ñu def benn déjà rapport boo xam ne li ñu mën a mën a tuddee maanaam bilan d'étape la pour jox ko président a la république pour wax ko fi ñu toll maanaam discussion yi li mu jot a ëndeegum mhm. te loolu boo xoolee li ñu seet maanaam dafa am ay ponk yoo xam ne bi ñu tàmbalee léegi moom ñoom am nañ ci juboo dañ ci bon ay point d'accord yoo xam ne bon xaw na xaw na bari tuuti mhm. euh, am na yoo xam ne maanaam yu ñu war a waxtaanewaat dañ ko waxtaanoon ba noppi. mais xëy na mu am ay jafe yu nekk ñu war ci waxtaanaat. Mm-hmm. mu am yoo xam ne par exemple moom maanaam ba bi ñuy arrêté commencé guñ ci waxtaan. donc ñetti point yooyu moo am yooyu donc la ñu defal benn rapport président la république mm-hmm. ko ci point bu ci nekk ci point d'accord yi lii ak lii la ñu juboo ci li nga xam ne waxtaanoon nañ ko ba noppi mais juboo amu ci lii la mm-hmm. ci li nga xam ne waxtaanaguñ ko nag lii la loolu maanaam la ñuy jébal président de la république. Mhm. maintenant ñoom commission bi bu neexee yàlla à partir de mardi. Mhm. ñoom seen bopp dañ ne dañuy dajewaat. bu ko defee semaine bi yëpp ñu mën ko liggéey mardi ba vendredi. Mhm. pour xëy na ci diggante délai wu ñaari semaine ba ñetti semaine. Euh, ñu mën a euh, point yi nga xam ne dañ ko war a waxtaanaat ñu mën ci xuusaat. yi nga xam ne aussi euh, waxtaanee guñ ko woon yooyu tamit ñu mën ci xuusaat vraiment ci xëy na bu ko defee balay yàgg ñu mën vraiment pare discussion yi foofu la ñu foofu la ñu toll. ngeen toll sànq wax nga ko ci nasaraan euh, mu euh, ñuy wax ci information njiitu réew mi daf leen jox délai yow nga expliquer ñu ne c'est c'est relatif mën nga ñoo leeral lan la lan la loolu wundu. maanaam délai bi ñuy wax euh, ça c'est relatif à quoi. waaw loolu xam nga euh, président xam nga boobu ba léegi boo seete acteurs politique yu bëri ñu ngi génn def ay sorties yenn leader de parti ne voilà euh, élection locale yi il faut que ñu def ko parce que tey maire yi dañu nekk tey di exercer mandat yoo xam ne donc disons c'est illégal. Mm-hmm. donc ñu si bëri temps yi ñu ngi kaas na wéy élection locale yi comprendre ñu report bi dañ ko def nañ ko def nañ ko def donc président de dañoo joxe woon donc ndigal ñu taxawal commission bi mun laaj leen foo leen ci tollu. Mhm. comme ça xëy na ci ni ma ko jàngatee c'est une façon pour moom vraiment bu xoolee les gars a waxtaan. Mhm. li ñu waxtaanagul ak li des et ce sera un moyen pour lui de prendre une décision en tout cas dégager sa responsabilité wane ne en fait bu mbir mi ba demuñ ci élection yi maanaam ba léegi maanaam ba commencé wuñu processus électoral bi. Mhm. mbir du ci moom. loolu moo a dafa am date bu joxe woon date datu maanaam nëgës nëgëndiku daan na élection yi daal du weesu le vingt huit euh, mars deux mille vingt et un loolu la jàppoon. Mm-hmm. bon léegi est-ce que maanaam président bu xoolee loolu dañu xam est-ce que élection bi mën nañ ko def pour man le vingt huit février. Mhm. wala il faut que xëy na ñu ñu poussaat ko tuuti. donc ci wàllu woowu nag am na pour man euh, xalaat bu ma ci am parce que boo xoolee liggéey bi des nii. Mhm. ñu war ko def maanaam waxtaan yi ñu war a def. Mhm. ak euh, ñaari ponk yoo xam ne yu am solo yoo xam ne opposition bi ñoom ñoo ko tegoon ci table ji mooy maanaam mbiru euh, auditu fichier électoral bi. ak mbiru évaluation processus électoral bi. depuis refonte ba deux mille seize ba ci présidentielle bi loolu dafa nekk liggéey boo xam ne maanaam kenn mënu ko def ci benn wala ñaari fan day jël diir. ci loolu ngeen sukkandiku pour yéen GRADEC ngeen ne nañ dàq euh, lii di local waaw ma mën mu wax ne sax dàq mën mu wax ne ñun GRADEC dàq man loolu sama point de vue la. Mhm. dama jàpp ne li ma xam xam xëy na ci mbiru élection. Mhm. xam naa ne. Euh, maanaam def ko fii ak le mars dafa nekk loo xam ne lu jafe. parce que mhm. comme ni ma ko waxee. ñaari opération yooyu dafa am solo. parce que mhm. dañu ne ñu auditer fichier bi. parce que mhm. am na euh, vraiment euh, opposition bi ñoom amuñu wóoluwuñu fichier bi. ndax problème yi ci amoon ci présidentiel bi bi affaire parrainage bi ak yooyu. donc léegi loolu boo bëggee par exemple tey commencer procédure lancement appel d'offre yi pour jël cabinet yi nga xam ne ñoo war a def audit fichier bi ak évaluation bi. loolu déjà tàmbaleegul. loolu loo le temps ngay dem ba am cabinet yi. ñu war a tàmbali liggéey liggéey bi dina jël lu mu gàtt gàtt ñetti weer xëy na sax même ba ñeenti weer te léegi août jeex na ba noppi donc boo ci tegatee ñetti wala ñeenti weer daanaka xam nga année bi jeex te léegi loolu loi bi wax mooy euh, euh, liste candidature yi ñu war a bu fekkee ne élection yi dañ ko jàpp le vingt huit mhm. mooy maanaam euh, quatre vingt jours au moins avant datu élection yi wala quatre vingt cinq jours au plus avant datu élection yi donc nit ñu war nañu déposer liste de candidature loolu boo ko xaymaa day nekk maanaam ci semaine bu njëkk ci janvier deux mille vingt et un diggante le quatre jëm le dix. Mhm. te diggante boobu non seulement liggéey boobu war nañ ko def génne ay conclusions. mais également war nañu ubbi euh, liste électorale yi parce que liste électorale yi ñaari at a ngi nii xam ne kenn binduwul donc loolu boo ko ubbee xale yi nga xam ne binduñu woon boobu ba léegi te am fukki at juróom-ñett war a nekk ci lissi il faut ñu bindu ñu war a changer seen inscription war a aussi donc def seeni euh, modification donc loolu yëpp boo ko xoolee ci loo xam ne par exemple xamaguñu ndax parrainage day am wala du am. Mm-hmm. ndax caution bi donc dañ koy maintenir wala duñ ko maintenir loolu yëpp ay problème la parce que bu fekkee ne da ne parrainage bi da koy maintenir mais il faut que mu am campagne de collecte de signature. Mm-hmm. loolu kañ nga koy def. xam nga ci ku war a liste donc début janvier. donc boo xoolee foofu laa euh, sukkandiku. daan ne techniquement. élection bi mënuñu ko def le vingt huit euh, euh, mars quand même deux mille vingt et un mm-hmm. maintenant loolu terewul man ma ne euh, comme par principe man maanaam dama contre élection ñuy ñuy maanaam caxat caxatee calendrier bi di ko reporter ak yooyu mm-hmm. mais bu fekkee am na ay jafe-jafe yoo xam ne nii mën na tax na ne par exemple mbir mi kenn mënu ko def wala bu ñu ko defee day déboucher ci situation boo xam ne du neex kenn ay contestation lay mm-hmm. indee ay coow boobaa il vaut mieux que ñu maanaam xool lu ñu mën a defee li ñuy wax réaménagement calendrier. Mm-hmm. maanaam jël euh, comme nañu waxoon ne mars ñu pousse ko xëy na ba fin mai wala ba juin comme ça bu ko defee liggéey yooyu nga xam ne moo war a am ñu mën ko pare. Mhm. nit ñi mën a déposer seen i liste candidature ci daaw la. loolu moo tax ma ne loolu moom il faut que acteurs yi mën a sóoraale loolu mais man ci li ma xam ci élection techniquement xam naa ne buñ ko bëggee def moom le vingt huit mhm. ah waxuma ne mënul nekk de waaye dina jafe lool lool lool lool dina entaché euh, li nga xam ne mooy procédure bi waaw voilà parce que wala lañ ko dara yoo xam ne pëtëm pëtëmee lay doon te loolu lu muy jur maanaam du du baax euh, monsieur Fall wax euh, ci li nga xam ne mooy crise bi am ca Mali tey ji nan nga gisee ëllëgu Mali ak euh, décision bi CEDEAO bëgg jël ngir mu régler situation ga fa ne waaw maa ngi lay gërëm mbiru Mali moom nekk na loo xam ne nii ñun ñëpp vraiment soxal nañu mhm. surtout ñun Sénégal parce que ñun ak Mali maanaam dañoo bokk lu bari mhm. dañu bokkoon fédération du Mali 1960 ba fédération ba tase ñoo jëlandoo suñu indépendance boole ci wàllu maanaam ay xëy na waasoog ci wàllu xeet daanaka ñi ngay fekk fi Sénégal ñoo ñu ngay fekk foofu et cetera ñu am frontière maanaam dañu jaxasoo lool daal xam nga am li ñuy wax histoire commune mm-hmm. bon boole tey boo xoolee lépp luy dugg ci Mali ci maanaam wàllu koom ci ay marchandi suñu port bi lay jaar lu fay jóge tamit di dem bitim réew suñu port bi lay jaar loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo ci économie Sénégal ak économie Mali. Mhm. donc loolu déjà donc que lii xew Mali vraiment ñun il faut mu intéresser ñu. Mhm. maintenant nag lii nga xam ne am na pour man lu ñëpp seen tuwoon la parce que gis nga depuis ay weer. peuple bi di wàcc ci mbedd mi di manifester bis bu jot pour maanaam ko fa nekkoon président jege fa. Mhm. parce que ci anam yi mu yore woon rew mi ak yu bëri yuñ ko doon reproché. loolu dem ba indi ay jaamaarloo yoo xam ne am na nit ñu ci ñàkk seen bakkan donc damay jàpp ne bu armee bi demee bo xool situation bi ba daal di intervenir jël nguur gi. jàpp naa ne pour man même bu fekkee ne coup d'état maanaam euh, dañ ko contre dans le principe maanaam mais euh, dama wax ne bu armée bi intervenir woon peut-être xëy na làmbaay dina gën a ñaaw foofu. Mhm. donc pour man dama jàpp ne tey position bi nga xam ne moom moo gën a euh, yanu maanaa mooy ñu bañ ne rek même bu fekkee dañuy condamné coup d'état bi li CEDEAO def mais ñu bañ a jël ay daan yu diis teg ko ci kaw Mali parce que loolu bu ñu ko defee euh, souffrance bi ci kaw peuple malien bi déjà lay gën a metti parce que Mali déjà boo xoolee crise yi fa nekk dafa bari lii crise politique la amoon na li ñuy wax naan nu mu tëtti donc crise sécuritaire parce que mhm. presque tey mën naa wax ne xaaju Mali boo xoolee ay groupe armé ñoo fa nekk ñoom ñoo ko occupé et li ñuy wax mooy les les les mouvements djihadistes ak groupe terroriste yi mhm. waaw xam nga boo leeg encore tey euh, crise sanitaire bi am ci kaw Mali donc tey boo jëlee ay daan nga def blocus maanaam Mali euh, marchandise fa dugg dara fa dugg mais loolu da ngay gën a lor nit ñi te jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo jël nguur gi foofu muy militaires yi ñoom wax nañ ne jëluñu ko maanaam rek seen coobare ba pour toog mais dañuy jël vraiment parce que situation bi demoon na ba nga xam ne dafa jéggi dayoo il fallait ñoom ñu àtte donc léegi ñoom dañuy wax ne dañuy def transition politique maanaam dañuy yore euh, nguur gi yore si négandiku mais yore boo xam ne dañ koy euh, ànd ak euh, ak civil yi. Mm-hmm. ak mouvement yi nga xam ne ñoom na contre ak opposition bi ñu ànd séq mbir mi bu ko defee ñu dawal pendant juróom-ñeenti weer bu ko defee situation bi dal ñu mën a def yeneen élection mm-hmm. donc dama jàpp ne tey position CEDEAO li mu war a doon mooy accompagner li ñuy wax transition politique boobu nga xam ne moom moo am jéem a waxtaan ak soldats yi. ñu accompagner jàppale leen ci loolu. Mhm. waaye bu ñu bëggee tey maanaam bëgg a jaayanteeg ñoom doole ba envisager yónnee fa ay soldats pour euh, euh, xeex ak ñoom. pour rétablir IBK par force loolu dama jàkkaar ne c'est voué à l'échec loolu du du sotti du dem fenn te loolu yaakaar naa ne du cëru CEDEAO. Mhm. donc moo tax moo wax ne euh, position bi nga xam ne président Macky Sall jël na ko sax pour man rafetlu naa ko. Mhm. parce que moom pendant que ñu ci ñenn ñi peut-être di xëy na xupp ak yooyu moom am na position bu gën a dal. fekkee ne condamné nañu coup d'état bi waaye nañu fexe ba lépp lu jëm ci koom-koomu Mali maanaam garab yi fa war a dugg ak marchandise yi fa war a dugg ak yu demee noonu. Mm-hmm. maanaam ñu li ñuy wax benn corridor humanitaire mm-hmm. pour que. maanaam Mali mën a bañ a am benn problème ñu bañ ko asphyxier donc au plan waaw gis nañ ci tamit beneen njiitu réew comme ni nga ko waxee mu am li nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee suñu dëkk muy troisième mandat euh, gis nañ ko tamit ci yenn pays euh, de la sous-région euh, tey président Guinée am ci taxawaay boo xam ne nee na dañoo war a réserver même sort ñooñu nga xam ne ñooy njiitu réew yi nam def troisième mandat ak ñi nga xam ne ñoom ñooy putschistes yi nan nga jàngatee loolu. waaw loolu moom dama koy rafetlu sax pour préciser donc président Guinée Bissau la mooy général def na Umaro Embalo. Umaro Embalo waaw moo wax ne vraiment tey. Euh, li nga xam ne ñu ngi koy def ci yenn dëkk yi mooy maanaam changer constitution pour def ay troisième mandat loolu tamit coup d'état la. Mm. moo maanaam armée bi ñëw jël nguur gi par la force tamit benn la xam nga. Mm. loolu nag bu ñu ko bu ko waxee yaakaar naa ne yóbbante la boo xam ne xam nañu ñu ko moom. Mm. Eh, ko moom mooy Côte d'Ivoire ak Guinée parce que gis nañu tey Côte d'Ivoire euh, président Ouattara tey mi ngi ne dafay defaat nu mu tëdd troisième mandat. gannaaw kii nga dauphin bi nga xam ne moom la ngemboon kooku yàlla euh, moom na ko. Mm-hmm. te loolu nit ñi d'accorduñ ci loolu indi na déjà ay manifestations ay jàmmaar loo xam ne ay nit ci ñàkk seen bakkan ba démb def naa ne jigéenu opposition bi def nañu marche foofu mu am ñu bari ñu ci ñu ci teg loxo. Mm-hmm. bon nga dem Guinée daanaka gis nga lafa amoon ak ña fa ñàkk seen bakkan depuis ay weer ci ay manifestation yoo xam ne front pour la défense de la constitution mu ngi ko doon def foofu pour euh, empêcher euh, euh, Alpha Condé mu modifier constitution bi. te mm. loolu mujj na ko def référendum modifier constitution bi ba nar a def troisième mandat waaw wa waa parti sax investir nañ ko. donc yooyu boo seetee yooyu mooy problème yi nga xam ne tey jàpp naa ne CEDEAO ci loolu la war a wax. Mm-hmm. parce que CEDEAO dafa mel ni boo ko seetee au lieu que mu nekk CEDEAO des peuples maanaam dafa nekk CEDEAO des états dafa mel ni syndicat chef d' état la boo xam ne mm-hmm. la leen soxlal mooy maanaam défendre seeni xarit yi nekk ci nguur gi parce que moment bi nga xam ne par exemple réew mi. Mm-hmm. Euh, peuple bi ñu ngi wàcc ci mbedd mi. di ñaxtu nit ñi fu mu ne nii ku nekk di kaas mais ñoom di xool. tey par exemple te ay nit a ngi fay dee li xew Guinée également waxuñu ci dara mais tey bis bu armée dëkk yooyu jógoon jël nguur ga wala peuple bi wàcc daaneel ñooñu euh, CEDEAO wax ne lu tax lu tax alors que man dama yaakaar ne loolu daal du position boo xam ne bu responsable la donc war nañu xoolaat CEDEAO ni muy fonctionner CEDEAO war na maanaam li ñuy wax di anticiper bu ay crise politique amee yoo xam ne mën na indi ay conflit ci moment boobu la ñu war a taxaw. Mm-hmm. xool ñi nga xam ci dëgg. ñooñu nag leen nekku leen ci dëgg mooy président yi nga xam ne maanaam dañuy caxat caxatee seen constitution bëgg def ay troisième mandat. Mhm. li may wax nii nag ci euh, Guinée di wax ci Côte d'Ivoire aussi moo valable ci Sénégal parce que Sénégal tey ñu ci situation boo xam ne bu flou parce que suñu constitution ni ko bindee dafa leer ne président ñaari mandat la war a am mhm. war a yem. Mhm. mais gis nga boobu ba léegi ñu ngi laam-laamee débat bi mi ngi fi. ah euh, bon président bu ko ci mujjee laaj dafa ne du waaw du wax wala du wax déet mhm. bon nii oui nii non bon nit ñi ku nekk euh, yaa ngi interprété am na ci ay nitam yoo xam ne dégg naa kenn sax ci jamono yi mu naan waaw manda bi président def maanaam euh, c'est nul et non avenu waruñu ko considérer ndax mbas mi donc président liggéeyul donc waruñu ko compter ci ñaari xam nga yooyu wax daanu ci saret la <laughs> donc man jàpp naa ne yooyu ñooy question yi nga xam ne tey CEDEAO maanaam war na ci addu bu ko defee ci lay mën a am crédibilité mm-hmm. waaye doo bàyyi ba nga xam ne euh, béy wéy na mbuus nga toog di seetaan ba vraiment donc mbir mi tàkk nga ñëw di wax naan voilà président ba dañ ko fa war a dellu tegaat par force loolu moom xam nga mënul nekk. Mm-hmm. waaw loolu daal moom rafetluñ ko ci ci wàllu CEDEAO. Uh-huh. Babacar Fall bu GRADEC merci beaucoup. waaw maa ngi lay euh, fay euh, soxna Elisabeth donc di la gërëm aussi ci ci waxtaan bi.